Je suis avec euh, Monsieur Adama Diara, le président de l'association des parents d'élèves de l'école Sougoundiaï euh, de Koumbal. Et donc, Mingini, euh, euh Taï, en tant que dirigé, en tant que le président des parents d'élèves de l'école Sougoundiaï, euh, Yann Diafé Diafé, vous am souvent dit à propos de l'école Bon, avant tout, je suis di di leen di remercier bu baax di pour l'école Sougoundiaï bu nga xam ci commune Latmingué la bok do maire bi muy Makumba c'est-à-dire ñun suñu seetee certainement jafe-jafe bu ñu am rek suñ ko waxé monsieur le maire Makumba da koy def chaque ouverture des des classes dinañuy doté des fournitures d'école euh, tabax na fa ay toilettes yo xamné ni pour d'une équipe pédagogique bi la ak élèves yi tout récemment ni rek euh, mi ñu wara a mi ñu wara doté ñu wara ñu wara défar ay ay ay ay table euh def nañ fa distribution des prix pour les meilleurs élèves de notre de notre école l'école école Sougou Ndiaye moom lañ ko parrainé woon bu mu taxaway taxawaayam rafet na amul lu mu fa deful ci adina Macoumba pour te dire que soo ko wax ci problème éducation Macoumba amul lu mu deful ci éducation ci commune bu Latmingué da korombu sax ci problème jeunesse ci problème santé ci lépp.

parce que vous avez fekk subvention ci santé 700000 000 750000 par poste moom moo mag bu par poste kon cela veut dire que c'est loolu poste bu ne 250000 poste bu ne 250000 vous mu ñëw def ko poste bu 000. 875000 kon cela veut que vous avez mi agir ci santé soo ko problème d'addiction d'eau euh, dans 8 villages nous avons une sollicité d'eau bu tous les villages tous les villages defal neen adduction doo te soo fa dem ñu ngi xali ñu ngi xelindoo te pour te dire que Makumba ñun ñun yéen xamule Makumba lu ñuy jëriñ Makumba c'est un euh, nu ma ko mën a waxee Makumba euh, euh, kilifa la defkat la ci alalam poosam poosam du ko fekkee. donc c'est quelqu'un boo xamante ni contribuer na tous les plans yoo xamante ni ñu ci commune pour te dire que contribution dafa contribuer sur tous les plans ci commune bi ci ngente ci dëj ci gamo yek ci école yek ci lycée yek amul lu mu bay amul amul phase bu mbay bay Makumba heure boko ko heure boko ko nekkar téléphone moy moy lu sa problème nga ko mu réglé ko c'est le seul maire bo xam mo jël numéro am ko ci bind ko né suma numéro ngi ni ku soxla ooma du mos sa téléphone am soxla ooma suma amé ma faj.

lépp soo suba su ngeen demee incha allah ci foofu noonu IEF e, e bi dina leen ko wax ngeen koy dëgg amul amul amul lu ci bay biso bi ni ko tegalee noonu loolu la ko nangoo jox ko c'est ça c'est important mm. parce que mënoon na am loo xam ne mënoon na ko wàññi mais wàññiwu ko donc matuma makuma pour te dire que c'est c'est un fils fils du territoire boo xam ne dafa amal njëriñ ay ay ay askan wi mm-hmm. as mosuma gis ko politique politique bu mel ni Makumba mm-hmm. koo xam ne day taxaw di daw ci soxla nit ñi noonu dama ne Makumba man dama toog ba di ko yërëm c'est un cas exemplaire vraiment. Euh, en tout cas ñu ngi lay ñu ngi lay sant dernier mois yi ak euh, suba en fait euh, nan ngeen war a ñëwee ak préparation yi ak tamit est-ce que woo ngeen force de l'ordre yeeg ñi nga xamante ne nii war nañu mën a ñëw jàpp. ñun daal ñu ngi ñaan askan bi commune bu Latmingué comme niñ ko tuddee suñu doom suñu responsable suñu maire ne journée de l'excellence pour suñu doom ñu la ñuy parce que ñun am nañ ci élèves hein. école secondaire am ci élèves boo xam ne suba dañ ko war parrainer donc ñu ngi ñaan askan bi commune bu Latmingué ñun ñëpp nañ gën dem. ànd ak suñu maire dem taxaw woo gannaaw woon ko ne nekkul maire bu ñuy bu ñuy xarab mais maire bu ñu gërëm la merci beaucoup. merci jërëjëf.